dali nag jàmm ñu ànd xëy yër yéenekaay yi nga xam ne moom la ñu xëyandoo yéenekaay gii di réew mi quotidien mu xëy di ñu xamal naan ñu xëy ci réewum Sénégal te tudd ñu fi nag ñetteelu mandat njiitu réew mi di président Macky Sall lu jafe la journalu groupe promo consulting bi mu ñu xamal naan ñu Mohamed Boun Abdallah Dionne ak kàddu yi nga xamante ni daal na koy yëkkati wax ne askanu Sénégal ak Macky Sall ba 2035 loole nag la muy firndeel mooy Mohamed Boun Abdallah Dionne mi fi nekkoon premier ministre bu Sénégal moom nag ma ngi xàllal Macky Sall yoon wi maanaam ma ngi koy rëddal aw yoon Mohamed Boun Abdallah Dionne moom nag ku jege njiitu di président Macky Sall te nag bëri na ay wax joo xamante ni bu ko waxee maanaam dafay nekk dëgg journal bi ne li nga xamante ni moo am ba des wolof Njaay nee na naar bu ndaw bi nag lu mu wax rek ci xayma bi la ko déggee te ñëpp nag daat nañuy xam jegeyantoo bi nga xam ne Mohamed Dionne jegeyantoo na ko ak ki nga xam ne maanaam mooy Macky Sall journal bi di réew mi quotidien mu ñu xamal nañu li nga xam ne moom lañ doon ruumandaat ci réew mi maanaam di ko ruumandaat di wax ne Macky Sall mi daal dafa bëgg amaat ñetteelu mandat ci bopp réewum Sénégal loole nag mbaadu Mohamed Boun Abdallah Dionne daf na ko tëll rajax maanaam yëkkati ko ci kaw yéen a kaay gi de la ko di cee mu ñu xamal naa ñu Mohamed Boun Abdallah moom kay yëmul rek ci Macky ak askanu Sénégal maanaam ba 2035 waaye nag daat nay wax ne li nga xam ne mooy mandat yi maanaam waruñu ko nag limité ilimix la war a doon Mohamed Boun Abdallah Dionne ne tànk daal askan wi ñoo ngi lay wóolu maanaam war ngaa mën a nekk ci bopp réew mi yéen a kaay gi de la ko di cee mu ñu xamal naa ñu loole nag gisinu Mohamed Boun ki nga xam ne mooy Macky Sall yéen mu ñu xamalal ñu kàddu yi Mohamed Boun Abdallah Dionne yi est ce que nag maanaam sondewul ñi nga xamante ni ñooy askan wi kaay gii di Vox Populi mu ñu xamalal ñu Mohamed Boun Abdallah Dionne moom nag mandat éli mix la wax maanaam ku ñu fal ci bopp réewum Sénégal daal askan wi fal la war ngaa mën a jiite réew mi waaye nag di wax ne mandat bi dañu koy limité ñaari at wala ñetti at loolee ci boppam amul benn pertinence yéen a gii di Les Échos mu ñu xamal laan ñu génn bi Mohamed Boun Abdallah Dionne def Serigne Modou Bousso Dieng daan na koy naqarlu bu baax a baax ne kàddu la yoo xam ne maanaam yu doy di la est-ce que sax jamono ji mënuñoo laaj ne ndax du Macky Sall moo nekk ci ginnaawam yéen a kaay gi di Sud Quotidien moom li mu xëy gis mooy Macky Sall nag dafay foowee ñi nga xam ne maanaam ñooy opposition bi maanaam Macky Sall da leen di kekkantoo li tax journal bi nag daal di kay wax ne na lu jëm ci wàllum dialogue politique bi Macky Sall ci boppam moo ko daal di bloqué ba pare jamono ji nag maanaam mu bëgg a peer njaay ñi nga xam ne ñooy opposition bi di piis ki nga xam ne mooy Idrissa Seck ak Malick di leen tàllal loxo loolee moo tax journal bi di Sud xëy nag mel lu yéemu ne waa dialogue politique bi ana nan la ko Macky Sall mën a bloqué ba pare jamono ji nag maanaam mu bëgg a tàllaat loxo ñi nga xam ne ñenn ci ku jege journal bii di libération ñu fekk fa Mamour Cissé bu PSD jant bi moom nag la mu xamle ci kàddu yi nga xam ne Barthélémy Dias daat na ko la mu xamle nee na maanaam nit ki mën naa opposé waaye nag opposé wu maanaam tekkiwul ne réew mi da nga koo war a daal di taal Mamour Cissé bu PSD bi daal di ñaawlu kàddu yi nga xam ne Barthélémy Dias daat na ko yëkkati wax ne Guy Marius Sagna li mu nekk catholique moo tax ñu daal di koy tëcc yéen a kaay gi du mu ñu xamal ñu Kémi Seba moom nag ni ki démb daat nañ koy mbogo mbogo génne ko réew mi Belgique la ñu ko yóbbu élément bibi yi ñoo doxalee lu ni mel waaye nag anam ba nga xam ne moom lañ ko dence woon ca aéroport international Blaise Diagne daat nay doy waar moo tax waa yaanaa man xëy di ko daal di ñaawlu ab avocat di maître Khoureychi Ba ci yéenekaay gii di réew mi quotidien moom nag ci dàq gi ñu dàq procès bi dafa tuumal nguurug Sénégal ak procureur journal bi ne ñaar fukki fan ak juróom ñaar ci weeru avril la ñu ko daal di jàpp ba tey ci biir bi di la témoigner mu ñu xamalaan ñu nag njiitu réew mi di président génn bëri na ay lycée yoo xam ne daf kaa tudde ñoo xam ne ay kàngam lañ ci réew mi waaye nag loolee daan nay jur coow lu rëy ndax nag ñi nga ni ñooy waa yoof ñoom dañoo jàpp ne Macky Sall maanaam fàtte gi mu fàtte Mamadou Seck Diop la maire loolee tegewul fenn Mbaye Zack Diop waa Rufisque nag ñoom jàpp ne war nañoo mën a tuddee ab lycée Mbaye Zack Diop di fàtte lycée bi nga xam ne moom lañ tuddee Amadan Soxo ci Wakaam ñu bari nag dañoo jàpp ne daal waroon nañ koo mën a tudde nag ab lycée ca fa mu fekk baax maanaam di Kédougou yéen kaay gi du l'Observateur mu ñu xamal lan société africaine de raffinage jamono ji ma ngi si ay jafeñ maanaam ci ay tolof-tolof girawaali gu rëy moo fa am conseil d'administration ba nekk ci nag crise yéen kaay gi dikk nag ci Moustapha Diop ak Cheikh Kanté mi nga xam ne ñaar ñii daal xale carte gab lañ leen doon woowee ndax na xumbute yeeg ndaje yi maanaam ñëpp nag déggoon leen seenu tur bi mag Sall doog di falu ñenn ñi sax jàppoo ne dañuy pasar pasare alalu réew ñi ñooñee moo taxoon ñu leen doon woowe xale carte gab waaye nag jamono ji journal bi li mu gis dafa mel ni seen guichet automatique dafa daal di panne yéen kaay gi di xëy wax ne ginnaaw oto yi nga xamante ni ay milliards milliards lañ ci dugal ci administration bu Sénégal journal bi nag daan nay wax ci lu jëm ci mbirum carburant bi ndax nag nee na juróom-ñaari at yi rek lu toll ci téeméer ak ñaar fukk juróom ci ay milliards maanaam daan nañu koy jënd carburant maanaam lu jëm ci entretien oto yi lu toll ci fanweer ci ay milliards journal bi nag xaalis bi bëri na yéen kay gii di réew mi quotidien mu ñu xamal lan ñu Clédor seen da ngeen a naroon a xëy rek ñu daal di leen koy tàggee maara day taali ndax nag ay agresseur ñoo ko agressé ci buntu gendarmerie bu front de terre daal di jël ab téléphone yóbbu ko moom sax ab 24 tuutee temm daal di koy mbëkk yéen a kaay gii di les échos xëy yóbbu ñu diwaanu caare ak lu doy waar loo xam ne moo fa daal di xew mag ak rakk ñoo xam ne ñoo fa faatu ñoom nag la faat ab supp la ñu lekkoon yéen a kaay gi du l'observateur mu ñu xam lan ñu benn waay moo bàyyi ba nijaayam di nelaw mu dagg awra ya yóbbu yéen a kaay gi de la turbine xëy dikkal ñu ci benn soxna boo xam ne moom nag dafa duma boroom këram ba damm loxo ba la waral nag boroom këram ci boppam dafa doon envoyante ay photo yu ñàkk war ak beneen xale bu jigéen jabaram daal di koy gis bi mu ko gisee nag bi dox seen diggante jabar ji dóor ko ba damm loxo ba jabar ji nag ab judoka la journal bi di Stades xëy dikk ci Ligue des champions mu ñu xamal la ñu tey ji nag Chelsea dina daal di dalal ñi nga xam ne ñooy waa Bayern Naples bu Kalidou Koulibaly ñoom fas yéene dalal ñi nga xam ne ñooy Léo Messi di waa Barcelona